suñu borom doolu la leeram te yàlla tas ñu ci barkeem li tax ma ubbee loolu mooy li ma naan ko sëriñ Béthio boo fi duggee ci péncam mi xam ne Serigne Saliou liggéey na ko waaye fay na ko ndax koo xam ne ba mu dëddoo ci saayir ak léegi def na ab diir waaye boo fi tàbbee ci pénc bi da ngay jàpp ne Serigne Béthio ngi ci biir loolu liggéey bu nangu la wax naa ko sànq di ko baax am na solo lool waaye demit bàyyi ku baax lu am solo la boo demee bàyyi ku baax loo rafet la mu ñàkk sëriñ Saliou Ndigal Thioune jërëjëf lépp lu fi sëriñ Béthio bàyyi ñàkk nga ko balaalu suuf muy liggéey boo xam ne nag ñu ngi ñaan suñu borom gën laa kàttanal ba nga gën a am kàttan goo ko yeggale ndax sag yàgg fi mooy sagu jullit yi waaye mooy sagu cantaakun yi ku ñëw ci penc mi rek danga xam ni baax rek am solo yàlla na nga fi yàgg te wér yàlla suñu borom gën laa guddal sa fan te kàttanal la ñu bàyyi la nga nuyu ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ginnaaw bi ñu ci liggéey bi ci dàqu nag yi ci penc ma ba ci biir dëkk bi dëkk bépp bég wax naa ko li ma gën a marqué bi nu ñëwee ban ci côté kër sëñ Saliou nag yi siisu ne duñu dem mu ne nag yi ci ndigal la nu ne nga xam ne loolu ay wax la waaye lépp sa yow sa jëmm ji la ñu ngi ñaan nga gudd fan loolu te wér yàlla nga gudd fan sagu jullit ñi nga sagu di nga waaye sax kaagu cantaaku ni nga ñu bàyyi la nga nuyoog ñu lay seetaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu te di leen fay di nuyu ñi nga xam ne ñëpp rek ñu ngi seetaan di sant yàlla bu baax a baax ci bi mu mayee nu fekkewaat bis bi muy bis boo xam ne bis bu màgg ci ñun di màggal Tuuba màggal gi nag moom moom moom ñëpp xam nañu njariñ li mu am ci ci ci ab murit waaw ba tax na mm, bëgg nañu lool ci ci ci nii mu demee euh, li ñuy jëkk a def mooy sant leen yéen ñi seen bopp yéen ñi nga xam ni su daanaka ñoo yendu ak yéen ci ci ndàqum nag moom nga xam ne woote woon nañ ko liñ fi li fi xew nag du dara du dul jëfi sëriñ bi sëñ Tuubaa ci boppam mooy def lu ko sopp te lii daa bokk ci mbiri sëñ Béthio moo ko daan amal di ko def te ba léegi it moo koy def mm-hmm. ku am xam-xam tuuti di nga xam ni jëfama jëfam du fi jóg mukk te sëñ Saliou ci boppam da ko daan wax dëgg li fekk mbirum sëriñ Touba ni dox sa mbir di dox kon nag lii yëpp rek euh, bett nañu bettuñu ndax jëfi sëriñ bi te jëfi sëñ tubaa amul tànk ginnaaw kon nangeen xam ni moom sant nañ ci lool ci nii mu deme ci ndimbal loo xam ni wóor nañu bu dul woon ak moom duñ ko am duñ ko xam mm-hmm. kon maa ngi sant mbooloo mi yëpp di sant bokki taalibe cantaakoon yi nga xam ni jëf ji ñoom ñëpp ñoo ko jëf waaw waaw sëñ ah, Béthio nag moom mooy jaamub sëriñ Saliou waaw ah, sëñ Béthio moom su sunu sang moom moo waral lii lépp jëf ji lu mu rëy rëy rëy na nga xam ni moom ci tàmbali bi ba ci jeexital li ñun doonuñ ci dara lépp moom ñu ngi koy dolli di ko sant di xam ni kat bu duloo nag moom du ñu mën dara te lu nu xam ci moom lañ ko dàmpe kon nag ñu ngi koy sant te di ñaan sëñ Tuubaa defal nu nu ko déwén te déwén dàqal nu ren foofu daal laa mën a yem ci kàddu yooyu. bi bi ak jëf ci lan nga yëg ci sag mbaax. waaw ah, moom de xolaa xol bu sedd guy nag. ndax jëf ju toll nii kat kuñ ko jëfal sa xol war a sedd waaw xol bu sedd guy laa la laa yëg ak santaat ko moom mi nga xam ne moo ko waral waaw. am foo ko nga waxaat leen taalibe yi jàjjiwaat leen ndax mu lu jëf fàtte ko. waaw taalibe yi day xam naa ni ñoom day sëriñ bi jàngal na leen ba min nanu lim leen jàngal yu jëfal sëriñ bi moom day mel ni. moom xam nañ ko te sëriñ bi ci lañu ñu mas a teg li ci des nag mooy àndandoo ko rek te loolu nag moom ñu ngi koy def mooy nu ngi koy àndandoo guddeeg bëccëg waaw maa ngi sant bu baax sëriñ Muntaxa xalifatul am di ñaan mu yàgg fi te di sant sëriñ Cheikh moom sëriñ Saaliw di sant waa kër sëriñ Saaliw yëpp di sant waa kër sëriñ Tuubaa yëpp ci lii nga xam ni moom bu dul nag ak seen ñaan mën naa am du fi agsi waaye ànd bu nu ànd ak nun te jàppale nu tax na wax dëgg yàlla yëg nañu cant bu rëy sëñ Mountakha nag bu ñu ko tuddee tudd nañ ñëpp waaw ñu ngi sant bu baax tey ñaan sëñ Tuubaa yàggal ko ci barkeb sëriñ Saliou jërëjëf waaw moom de laaj ma daanaka moom la laaj rek li nga xam ne moo nekk ci sama loxo te moom mu bàyyi ko fi moom day jógul jógu fi ndax moo ko yoral boppam euh, di wax ci man nag man da am solo hmm. waaye yéen gis ngeen boobaak léegi taxawaay bi xam naa dama leen di bàyyi ngeen apprécier loolu waaye jàpp naa ne daal maa ngi ci góorgóorlu ak di ci napp nag ak jàpp ni lu ma def euh, te mu dëppoo moo loo xam ne moom la daan bëgg rek man sama tawféex la leneen lu mu doon nag mooy defuma li ma war nekk bi ma ci nekk daf maa war dajale taalibe yi daf maa war dajale njaboot gi daf maa war mm-hmm. góor ak jigéen ku xam ak ku xam man moom ci loolu laa ne ma sañoon rek euh, moom lépp rek taw féexe waaw maa ngi ñaan rek sëñ Tuubaa gën ñu koo jàppal rek rafet naa njort ci di nag lépp dina aw sol waaw jërëjëf ndeysaan waaw loolu nag mi ngi dépendre ci Serigne Cheikh kër sëñ Saliou daa am kilifa te man dama man dama tënku ci ndigal foofa moom lu ñu fay jëf rek ci ndigal lay lay du man maay tànnal sam bopp projet yu ma fay def wala yu ma fa dul def ab taalube laa boo xam ne day toog di fuglu ndigal di ko déglu moom lu mu ñu sant rek ci loola la ñuy ne ñuy ñaan mu yàgg fi a jërëjëf waaw baax waaw mais dégg fekk ko ci kër gi gënul ah ay ca waxal boo mënee wax ak moom baal ak moom demoon na waaw waaw ndeysaan ndeysaan déggal loolu jërëjëf kan soxna si wax jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Sall